kuréel gii nag ku ko gis xam ne kuréel la goo xam ne si ne li tax ñu mën a woon nit ñu ñëw toog ne teg ànd ak yar ak teggin di déglu message yi fi am kuréel gi ko xam xam ne kon du kuréelu caaxaan ay résultat la wane ba tax loolu mën a am moo tax soxna si bi nga xamee ne moom loolu moo ko ñor mu nekk femme développement fii ci commune bi nga xam ne si ne maamam moo ko sanc Serigne Touba Xaadimu Rasuul te mu xam ne am na devoir dugal ci loxoom pour lu développer dëkk bi moo tax bi sëñ làmp ñëwee ak délégation bi mu àndal waxtaan ak moom da leen a déglu attentivement poser leen ay questions ñu wax mu dégg leen bi ñu génnee lim ma njëkk wax moom soxna si dana ma ñii de seen mbir mii mbir mu am solo la lu jar jàppale lañ te loolu rek moo am solo ndax bari na ñooy recevoir boo leen dégloo ba nopp dangay xam ne ñii li ñuy wax li ci ëpp seen mbiru bopp mooy tax ñuy wax. waye soxna ci bimu len deglo ñu wax ba nopi mom moma wax ci làmmiñam ne ma ñi de ñu mata jappalé lañ kurel gu am solo lañ am nak man limo moma taxa jox té lolu suko waxé tamit lolu nek na deug ñun ñi nga xamné ne ne xam nañ ko bu baax nak ñi ngi ñaanal yalla guddal fanam yok wërsëgam mais lepp lu tranga yo xamné ne touba dina ko jox jox nako ko machallah suko neexon tok di nungu àddiye kom ñëpp waye nak dafa wëlbeutiku nak dugal nak loxom ci développement dëkk bi te xam ne ab dëkk ñoo ko dëkk rek ñoo ko mën a defar kon sëñ làmp soxna si nee na na ngeen xam ne mi ngi ci seen kanam mi ngi ci seen ginnaaw ndax nee na jàpp ne ne moom màkka la fa nekk ci ay taaral ci ay rafetaay ba nit ñi xemmeem ko nee na jàpp ne ne loola war naa mën a am ci dëkk maamam bii moo tax bokkul ci ñi war gëm na ne bokkul ci ñuy toog di seetaan daa war a dugal ci loxoom ci fépp moo tax képp koo xam ne si ne ab taalibe nga boo xam ne da ngay jóg yore sañ njàmbaar di dugal sa loxo ci askan wi ngir jàppale leen soxna maam xarit nee na boo ñëwee mu nekk sa bàjjan nekk sa yaay nekk sa kilifa. tey dañoo am mbégte gis kuréel gu mel nii rawatina nag bi ngeen duppee kuréel gi maam Cheikh Ibrahima ndax man yàlla dafa dogal ma bokk ci njabootu Serigne Touba waaye nag dama bëgg Cheikh Ibra Fall loolu ko def ci man di royit am njàngaleem ak it di di dégg Cheikh Ibra fi mu doon waxee nit ñi comme ni nga ko waxee léegi euh, maam Cheikh. mun nañu def maanaam université la si biir àddina bi àddina bi bu ñu toppoon Cheikh Ibra dégg am njàngaleem ak fi mu doon waxee ak ni mu ñu doon wanee Serigne Touba kon tey jii réew mi dépassé na fi mu toll kon développé nañu ndax koo xam ne bi mu ñëwee euh, liggéey la wane euh, jàmm yàlla ndax suñu borom moo wax ne euh, su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne jaamu yàlla goo gis rek tudd yàllaa ko gën a am doole. koo xam ne dafa dëkkee tudd yàlla boole ci di liggéey di joxe. loolu dara féetewu ko kaw ndax damay fàttaliku ne Cheikh Abdou dafa waxoon ne nit de mën nay jaamu yàlla mooy julli woor génne azaka ak dem màkk mooy ponk lislaam yi juróom yi waaye nag liggéeyal yàlla moom ci jaami yàlla yi rek la ko nit manee te lii mooy liggéeyal yàlla dangay fekk nit fa mu nekk nga dimbali ko jàngal ko waxtaan ak moom former ko yëkkati lu mën a liggéeye jox ko teg ko ci yoon loolu mooy liggéeyal yàlla ci nit ñi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm làmp di la wax ne yaa ngi ci yoon na nga gën a góorgóorlu te nii nga waxee rek jiital pëstéef jiital ci liggéeyal Serigne Touba ak liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall soo ko defee Serigne Touba moo lay fekk ci liggéey bi jàppaleel la boppam man nag moom comme ni nga ko waxee rek nekk naa marraine bi ren mais fas yéene naa nekk seen marraine saa bu ngeen yëkkatee rek maa seen kanam nekk seen ginnaaw comme ni ko général waxee ndax kuy fekk mbooloo moo xam ne ànduñu ngay waxtaan ak ñoom ba ñu ànd di leen jéem a teg ci yoon soo fekkee koo xam ne daf laa formel ba pare ne la kaay dimbalil ma mbooloo mi defe naan loolu kooku daf laa yombalal sab liggéey incha allahu rabbi gaal yi nga xam ne ñu ngi wër di ko sampal groupement yi dinaa ci yëkkati ab lim boo xam ne formé nañ leen ba pare dinaa ko jox sëñ làmp ak nday faatu mii mu waraat ci yéen soxna yi yéen ñi nga xam ne jotagu leen a am ci gaalu yooyu ci modèle financement la bu ñu génnee sampal ko jàmbaari gox yi barki dem bi ñu ñëwee sama bureau wax ma jàmbaari gox sama xol dafa sedd ndax lu mel dama ne la man tur wi rek dèjà sedd na sama xol ndax lu mel noonu laay wër ci dëkk bi su ma sañoon gox boo dugg ci dëkk bi da nga fekk jàmbaari gox joo xam ne jàmbaari Serigne Touba lay doon day roy Cheikh ma faal ci taalibe ak ci nangoo liggéey ak ci pas-pas parce que loolu mooy développé dëkk dëkk bi ku nekk da ngay tàmbalee développement bi sa kër génn sa koñ mu jàll ci quartier bi ba keroog ñun ñëpp ñu dajee fekk ne ku nekk liggéey nga ba liggéey bi feeñ loolu mooy indi développement ci dëkk kon daal sëñ ñu ngi lay gën a soññ bu baax di la wax ne daal bég nañ ci liggéey bi te it jàpp nañ ne euh, Serigne Touba bi ngi koy jëfal ak Cheikh ma Fall bég nañ ci ndax loolu moo waral sëñ Moustapha Moussa mi teew fi man mii ma teew fi njabootu Cheikh Ibrahima gi teew fi di ñaanal ci barkib Serigne Touba yàlla nga ci desee ndimbalu Serigne Touba ndax Touba moom dañuy tàmbali rek waaye Serigne Touba mooy yeggale am naa mbégte lool bu soobee yàlla na ngeen xool ñi amagul gaal yi bu ngeen ñëwee incha allah dinaa ko ci teg ko seen loxo ngeen wër jigéen ñi sampal leen ko ak yeneen yoo xam ne ittewoo ngeen ko bu ngeen ma ko waxee lépp ma lu ma man dinaa ko ci def te jëmmi Sëriñ Tuubaa ji rekk tax